قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص بما أوحينا رفيق هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق moom sa turandoo turandoo la maanaam bi ñu ko yee ay maamam la ñu may seen papaam ay papaam la maa maa euh, maamam ñoo bokk bàyyi ci biir papaam léegi Ousmane mii ma tuddee moom la ñu ci mokkal kenn nag mooy sunu xalifa mooy allah imaamu mooy imaamu dëkk ba te damay wax ni tabaarakallaahu mooy sunu roy waay euh, soixante douze fekk na ko muy naafila alquran ba bisub tey waqafam fanweeri isim la bu dee koor ab kaamil lay jàng par ñeent fukki at yi juróom yi tam alquran la ciy naafila dama leen ni moom ku mu ni mënul alquran nag ma jàpp ni mënu ko ku mu ni mën na ko ma ni mën na ko benn am na kaamil yu si amiru loo bind yu njëkk yi dafa ñëw kër gi ko ci kaamil ma ne ko jaarale jox benn ba ma dikkee ma jox ko ko ne ko kaamil bi de woon na lool mu ne ma waaw xaalis kulli say di sóotu la fa sóotu la naam rek kulli ji da koo bàyyi ma laaj bi ubbi fa sax mel noonu la kaaw yi di jëkk yëpp kulli ji da koo bàyyi yu mujj ji lañ dem xaalis kulli say foofu roobu loolu nag vraiment xamal mus jàng naa ko ba boobu mus mus ma jëlee formation waaw fa tabaarakallaahu moom daal mooy suñu royuwaay fa tabaarakallaahu yal na ko yàlla dimbali mooy sunu mag mooy sunu xalifa mooy sunu lépp mooy sunu sëriñ itam nag sëriñ yi lu jëm jëm moom dañu a yëngu moom yàlla xam na ko loolu ci am bàkkaar baax na jërëjëf. saakallaahu na yaakaar naa loolu wër leer na nañ ñi dañ naan fa ndox daa taa ba tey peut-être lii li muy wax ne ñoom yàgg nañ ci alquran ñi ci alquran faaw nag suñu borom itam di leen suturaal leen teral ci alquran bi nit ki am nit yi am ay ndam tabarakallah kon jërëjëf kon Serigne Ousmane Gueye moom moom lañu woo ngir ñu rek gone yi nga xam ne ñoo mokkal li ma doon wax tàmbalee wax dama ne daje ñuy daje di def ay xatlaak yooyu du seet ne xale bi mën naa jàng wala waaye dafay soññ xale yi nga xamante ne bii mokkalaguñ ñu mokkal ñi nga xamante ne bii itam réere nañ fu liggéey bi toll ñu xam liggéey bi toll loolu rek la mais alxuraan moom yàgg nañ ko dara yàgg nañ ko bind yàgg nañ koo jàng waaye jamono ju nekk dafay am lu muy laaj ak ñu ngi doxee a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال القواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت ربنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا متوفيك إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم jërëjëf sëriñ Ousmane yàlla yàlla fay lay yóbbu alxuraan bi moom moom xasaan moom ñu ko sa turandoo turandoo waxee rek du yéem kenn ndax cosaan la la kon yàlla yàlla barkeel la yàlla yàlla barkeel la ñi ko wër bu ñu nee mokk naa alxuraan mokk naa alxuraan ndax ci gën a tuuti ci ñoom bu taree du gàtt kon yàlla yàlla def nga barkeel nga yéen yàlla def la barke inna Allah طغى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقال Chers parents, chers invités, comme tout enfant, nous avons le droit de vivre avec nos parents. Nous avons le droit d'être nourris suffisamment. Nous avons le droit d'aller à l'école. Nous avons le droit de se faire soigner. Nous avons le droit de jouer et de s'amuser. Nous avons le droit d'être protégés contre la violence. Chers parents, Tous ces doigts que je viens de vous sont à notre portée et sont appliqués dans notre institut islamique. Nous sommes fiers de notre marabout Cheikh Mapatem Mbaye qui ne cesse de redoubler ses efforts pour la réussite de ses talibés. Nous les remercions infiniment. الشيطان الرجيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين bika wa suriyataha a seytaani rajim rabbi auusu bika min hamasaati sayaatin wa auusu rabbi bika an man sant naa yàlla bu wér a wér a wér mënumaa wax nag waaye sant naa li sunu borom di wax ci alxuraan mi ngi naan auusu billaahi min a seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim wal asri giñ naa ci tàkkusaan ni inal insaana naka doomu aadama yi la fii xusri ci pett illa na amanoo lu dul ñi nga xamante si ni gëm nañ wa amiloo saalihaati ñuy jëf-jëf ju baax watawaasaw bil xaq ñuy dénkuwante ci dëgg watawaasaw bil sabri ñu dénkuwante ci muñ sadaqalaahu laasi jërëjëf jërëjëf Mouhamad laa xayra ci ñi mokk alxuraan ñu ngi leen tere bis bii auzu billahi minash shaytani rajim la khayra fi kasirin min najwahum illa illa بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا sadaqallahul azim bi shay'an wa bil walidayni ihsanan wa bizil qurba wal yatama واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصائب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا صدق الله العظيم tabaarakallah waa ربنا وأنه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى صدق الله العظيم لا من الشيطان الرجيم قل أنبئكم خير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري جنات Whoa! assistants, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui à l'honneur de cette cérémonie de récitation du Saint-Coran. Nous vous présentons ce discours de bienvenue, les talibés. Dans toutes les rues de la capitale, on les voit quémander pour manger. Sa mère dans cette vie fatale, ses enfants dorment sans manger. sans père dans cette vie de galère. Ces enfants dorment à voilà une vraie de misère. La faim, la maladie et la souffrance leur font souvent verser des larmes et sur cette terre, ils regrettent أحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أقرأ لهم من القرآن الكريم في سورة معون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يود ولا طعام مسكين فويل للمصلي الذين هم عن صلاتهم يصاعون الذين هم يراعون فيمنعون الماعون الحديث ويمنعون ويمنعون الماعون الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه حديث bi ma doon tari ci arab laa leen bëgg firil ci olof yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na yow xale bi sooy lekk tuddal yàlla te kanam xadis bi ñëpp ci dëppoo baadal xamdalati wal summa salaatu wassalaamu ala nabiyil mabuusi rahmatan lil محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات والمبعون والمبعوات وجميع الحاضرين أحييكم بتحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قود وهم على ما يفعلون بالمعروف للمؤمنين شهود صدق الله العظيم الحديث الحديث من إذا إجاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره رواه البخاري ومسلم xadis bi ma leen doon taril ci arab moom laa leen bëgg tekkil ci olof tere lor sa dëkkandoo jëlee nañ ci abi hurayrata suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba rafetal jëm ci sa ak ku gëm yàlla ak bis bu mujj ba bu lor sa dëkkandoor hadis bi solo na ko Buxaari yu ak Muslim hadis bi li ñu leen ci mën a jàngal tey mooy bi dafa war rafetal jëm ci dëkkandooram deuxième bi mooy jurit bi warul lor dëkkandooram moo xam si wax wala si jëf su dee si wax la bum nekk di ko jëw mu koy rambaajal su dee si jëf la bum bàyyi ba gudd mi riiwoo ndoxu feew si si mbedd yi suñu bi salallaahu alayhi wa nee na jibril daka daan dénk ba mu yaakaar ne su deewee dëkkandoor daka dina ko doon xadis bu buxaari yu ak muslim ñoo ko solo bismillahi rahmani rahim قدير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 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الحديث الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت رواه البخاري ومسلم xadis mu doon wax ci arab laa la bëgg a ci olof suñu ci sallallahu alayhi wa sallam nee na xef ne islam ci juróom la benn may amul benn buur bi ñu jaamu ku du yàlla subhanahu wa taala ak yonent ci sallallahu alayhi wa sallam yàlla la ñaareel mooy ngeen taxawal julli ñetteel bi mooy génnee asaka ñeenteel bi mooy ngeen woor weeru koor juróomeel bi mooy nit aji néegu yàlla xadis xariyo ak muslim ñoo ko solo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله allah macha allah baada xamdalati wal basmala summa salaatu wassalaamu ala nabi almawuus rahmatan lil alamin amma baadu fa yaa ayyuha al ixwatu wal axawaat wal mad'uuna wal mad'uwaat wa jamii'il xaadiriin uhayyikum bi tahiyyati islaamiyya alaa ruhi assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh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 النجم الصاحب إن كل نفس لما عليها قافز فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يحرز من بيت السلب والتراب يخرج من بين يخرج من بين يخرج من بين السلم والترائب إنه على رجه لقادر يوم تبلى السرائر فهذا صدق إنه لقول فس وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد للكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم الحديث بر الوالدين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه ñépp ci dëppoo xadis bu woon tari léegi si arab moo xaale tekki si olof jëlee nañ ci abdullahi bu mas'udin yal na ko yàlla gërëm nee na laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéen jëf la yàlla suñu borom subhanahu taala gën a bëgg mu ni ko bi si njëkk mooy julli si waxtu ba mu ni ko ak ban mu ni ko bu si topp mooy fonk say ñaari waajur mu ni ko ak ban mu ni ko bu si topp mooy jëfal si yoonu yàlla xadis bi ñëpp a si dëppoo xadis bi li si war a jàngatee mooy bu keroog yow ma lu ñu njëkk a mooy julli bu baaxee rek lépp baax na bu bonee ñu doogee réglé say nawaafil say joxe asaka say woor say aji say jëf yu bi mooy ngeen fonk seen ñaari waajur bu ngeen wax ñoom ngeen wax xam naa yàlla moo ngi wax ci alquraanil karim wala taqul ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما nee na bu leen wax lu toll ni uf te bu leen gëdd nga waxoon ñoom wax ju neex salaamaaleykum wa rahmatullah. fala taqul lahuma uf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله la يتقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ما أنزل من قبلك وبالآخرة هم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله العظيم Chers parents, chers invités, nous les talibés de l'Institut islamique Cheikh Mapata Mbaye Nous vous assurons que nous ne commandons pas dans les rues de la capitale ni de Djakar pour manger. Nous sommes bien logés, bien nourris. Nous voyons toujours nos papas et nos mamans. n'avons pas faim, nous n'avons pas soif. Nous sommes toujours soignés quand on malade. Nous ne regrettons pas d'être talibés dans cet institut islamique Cheikh Mapatembay. Nous apprenons dans de très bonnes à côté des enseignants et directeurs terrain gentil. Merci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala nabi al-murtada wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. فيا أيها الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والمدعون والمدعوات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 لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عزامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأ بدأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه صدق الله العظيم الحديث ذم السخ والظلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqu zulm fa inna zulm zulumaat yawma alqiyaama wattaqu suha fa inna suha ahlaqa man kaana qablakum xamalahum ala an safaku dimaahum wastaxallu maxaarimahum rawaahul muslim xadis ma doon wax léegi si arab moom laa leen bëgg a firil si olof an jaabir ibn abdullah jëlee na si an jaabir ibn abdullah radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent sallallahu alayhi wa sallam na ngeen ragal toog ndax toog ay lëndëm si lëndëmaa yawmal qiyaama ak ngeen ragal soxor ndax soxor moo alagoon ñu leen ci jiitoon moo leen yóbboon ñuy tuur ay deret ñu daganal yàlla araamal rawaahul muslim muslim moo solo xadis luñ si mën a jàngatee si xadis bi benn bi mooy ngeen ragal tooñ ndax tooñ ay lëndëm la si lëndëmaa yow ma xayaam ak ngeen ragal deuxième bi mooy ngeen ragal soxor ndax soxor moo alagoon ñu leen fi jiituloon moo leen yóbboon ñuy tura ay deret par exemple xaabir ak xaabir xaabir mooy ñaane seexam pour xaabir loolu taxoon ba xaabir rey xaabir kon na ngeen mën seen diggante salaamaaleykum wa rahmatullah. chers oustas, chers élèves, honorables invités ici présents au centre islamique Cheikh Mbapa Dembay, nous vous accueillerons avec plaisir de nos jours. La société sénégalaise est confrontée par la crise des valeurs. De ce fait, notre centre en gage pour l'éducation des enfants qui sont l'avenir du pays. Ici, on nous inculque toutes les valeurs propres à notre pays. Le Sénégal, amenez vos enfants au centre islamique. C'est mon Merci beaucoup à tous. waaw wax nga dëgg ndax mbir bu bu dee ne yow ci sa bopp loo ci def xeeb ko leneen lu ci nit def lu nekk day rëy ci yow lool loolu mooy kàddu sant bi ñoo ngi koy sant bu baax moom itam ñu ngi leen di laajee daal taxawaay di sant booleem ñu fi teew ñëpp itam kon loolu mooy liggéey bi am na ko yàlla nangu yàlla def yàlla koo fekkee ay at yu bëree bëree bëri te yàlla yokk man-man bi yokk wér gi dolli xéewal yi bu baax a baax te it yàlla dolli ndam yi. gën a yokk daara yi bu baax a baax gën leen a kàttanal gën a taxawu loolee taxawu itam ñi nga xamante ne bii ñoo koy taxawu. wa axiru daa wax na alhamdulilahi rabbil alamin kon oustaz Ba am